Assalamualaikum. sunu mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar baax di leen nuyu di amaat kontante ak mbégte lool jàkkaarloog yeen seen chaîne bi nga xamé ni mom moy MIG TV émission bi nga xamé ni mom moy Xiduna di émission bu am solo bo xamé ni monde entier ñu safa lool tay tam ade ko trop nima ko yagg waxé rek émission bi xam ngeen ni sonu su baax muy soxna Mati Cissé nek ci Tamba mom mo amé semaine bi yépp émission buñ ko jaglél ndax man diko ko baax ndax bëgg itam bi bëgg njabotam bay itam bëgg bi bile émission waye tay émission bi dem ci mbir mu yéme ta doy war jo xamé ni faral di dal ay ndaw ci réew mi danay tam am ay famille yu mu dal mi bi da caa rawati tam gën ci atis lu tax mu gën ci atis ndax ñun ñëpp jaar nañ ci bobu lay étape moy nga nek xalé bu ndaw à l'âge de trois ans ou quatre ans say wuy jur jël la yóbbu la ci yooyu daara kii nag bi mu nekkee xale am ñeenti at wuy juróom bu jigéen daf ko jëloon yóbbuwoon ko daara ñu bari wax ne nekk xale ba daf ko sonaloon lool ci mu ñàkkoon ko mën a yor ku ba taxoon mu jël xale booba xuloo ci wuy juróom bu góor daal di ko yóbbu daara. xale ba nekk nekk na daara ba am fukki at ak benn ci la wuy juróom bu góor daal di faatu ba léegi xale boobu ci la mujj gis borom way way juróom booba ginnaaw ba mu amee ñeenti at waaye tam la ci gën a yéeme mooy way juróom booba yi nga xamee ni moom moo ko yóbbu woon daara laata xale bi tamit di jóge daara way juróom boobu mujju naa nelaw ñàkk bakkanam xale boobu nekk yàgg daara yàgg bu jéggi dayoo bu tiis boo xamee ni dem na ba màgg ca boobul daara waaye itam dem na ba nekk ba sax ci daara jooju te daanaka ustaas bu ndaw te xale ba mas ta xam sax moom ana ba dëkk la bàyyi ko loolu nekk mu bari loolu Sénégal ay xale yu bari yoo xamee ni seeni way jur dañ leen a jël yóbbu leen ci daara yooya bàyyi leen fa dootuñ leen bàyyi xel mukk ba xale yu bari daal di fa màggee waaye nag xale ba màgg gi màgg daara taxul mu doon ku ñàkk jom day itam taxul mu doon ku ñàkk xam kuy boppam yàlla may na ko mucc mu génn ci bopp la daara waaye nag ndaw loo xam ne dundam ca ndawam fa metti waaye tam magam gën koo piir li tax magam gën koo piir waaye xam ngeen yàlla suñu borom kat tëj buntu muk tëj palanteer bi xale boobu nag ñibbisee ci village bi nga xamee ni xale boobu fa la dëkk mu fekk fa lu gën a trop nekk yaayam yu fa mais ma wax ni dafa soxor li tax ma wax doomu aadama mbon dafa bari ci mom trop amna nit ñoo xam seen banex mooy di toro xol doomu aadama seen bànneex mu jàppee doomu jambu ni jam waye tamit seen banne bokku na ci doom bu nu jurul lepp lu ñaaw dañ ko koy tek ci kawam doom bu nu gisul bayam mbaa baayam daanaka duñ ko sax topato waye nag ba xale ba ñibbisee mom ci bobu le village yek na ne ndayam am na ñetti rak yo xamé ni mom ak xalé yu bokku bokk ak baye waye nag bala mako yeggali ma ngi leen di yeggal ne dina leen wax histoire bu day bi xalé bi ñew ci bobu le village xam ni ñi ñoo bokku mom nday ak baye waye li mu laaj waxa baane bobu ana ay wuy juroom ñu xamal ko ah bi na faatu mu laaj sama waajur lan lañ fa bàyyi ci lu ndonowu ñu ne ko daal ne ko sa waajur daal liñ fi bàyyi bariwul daal di ko joxoñtaal benn terrain boo xam ne ma nga ca bitim village ba ne ko bii daal sa waajur ko fa bàyyi waaye itam dara gënt yéeme moo di ne laaj ay ndono baayam ñooñu dëkk moom ko moom dara gën a metti la fa muy laaj ñooñu seen ndono ndono baayam ñooñu fan yi bayee ñoom baayu xale bi moom moo ko moom waaye tamit di gën a yéeme ci xale boobu moom moo di ne ñi mu ràññee moom mooy waxal ne na ñi mu ràññee ca kër ga di fa gën a sonn dafa jàng ci néew moyen dafa fa liggéey liggéey jànk gépp ndeke moom ay rakkam yu mbokk ndey ak la ndax waa kër googu jàpp gin jàpp ne ñoom ñii de seen taaw baay bu mu amee ñeenti at la fi jóg a dem jàpp gën jàpp ni daal ne dootul ñëwati mbay itam bu ñëwee itam dootul laaj boobu la warteef bi nga xam ne am na ku ju boobu la kër mais senegal bu ñuy wax ne dëkku diine la da ngay am njàqare akum tiit ne est-ce que dëkk bii dëkku diine la ndax xoolal jirim bu ñëw di laaj warteefu wuy juróom bu góor ñu xamal ko ne daal sa wuy jur amu fi dara ndekk ci histoire firndeel na ne ñoom fañ nekk noonu dëkk fa wuy jur xale bi ko bi moom ko moom waaye nit ki mën ngaa jël sax alalam ba noppi mën nga ko xañ ak kam ak yellee mën naa ñàkk ngay jublu ci gi dina faat boobule bakkanam waaye buñ te yemoon sax ñu ne waaw daa yem ñu fa ndax fii muy wax ak yéen xale bu góor googa ko jëg sax daf ko tëx ndax benn ci ay cëram dafa lompoñ te li ko waral rek mooy ay galaaj ndax ñoo jàpp ne ni bu xale ba jógee seen kaw mën naa uti mbiri yoon te bu yoon xaati mais kat ñoom ñoo dañuy ba dañuy mujj ñàkk kër gañ nekk waaye ñoom xame googu jëg nañu dugg ci maaman ya fexe ba xale ba ba wax ne daal làmmañam daal bu mu mukk jëmee ci seen moomeel yooyee nga xam ne ni tey ñoom ñoo fa tabax ak ki moo alalu bàyyi xale booba waaye nekk ma ngay tëdd koro bi ma woo ne ma diw mu ne ko naa mu maa ngi tëdd daanaka juróom-ñaari at ni yoo xamee mënumaa génn fa ma nekk ndax dama tawat waaye nag samay mbokki bopp ñoom ñoo ma liggéey ndax alal gi nga xam ne ci lañ teg seen loxo ak seen tànk man maa ko moom maa samay rakk loolu nag man mett na ma naam mais dama cee gis ay histoire yu mel nii yu bari ci àdduna ay muumin ay jirim yoo xamee ne seeni mbokki bopp ñu ngi leen di toroxal toroxal joo xamee ne daana ko kenn xamul na mu toll ay mbokkam dana ko liggéey ba xale ba mujj daana ko mënatul dara ci kaw suuf jël ay rakkam jàppee leen ni jaam dina liggéey loo mbindaan mais li ma choqué ci histoire bi li ma ci gën a metti mooy village bi mu amee waa dëkk bépp xam nañ ne lii nii am du yoon ni xale bi rek moom mu am dëgg waaye village lëmm ñëpp bëgg a nekk ay naafeq ñëpp bëgg a nekk ay jaam bañ a nekk ay gormuk mukk village boo xam ne saa bu nu xëyee ña ngeen juróom noddu ya te nu yëkk ni dëkk gi ñu ne rek am na ko nu xañ akkam ak yelleefam Sénégal moom yalla ma yalla bal mais day dëkk ju bon xamé né do mer ma ñi fi nekk dañu soxor dañu lay gis ñu lay faat sax duñ taxaw mukk nañu nga lay faat te ñëpp xam nañ ni bi dé baye mu mom suuf si mom tool yi waaye wa dëkk ba do naa feq ñëpp ragal wax lay dëgg waye buñ ci yémon sax ñu déet ñu xalé bi ñu mystique ko gàllaaju ko batay xalé bi mëna lul bopam dara moo tax émission tudd Xidma dafa nekk émission bu am solo moo tax kenn ku ne nit ñi war nañ jël ay ñàngat war a jàngat ne doomu aadama dafa soxor doomu aadama dafa bon dafa soxor fekk yaa ngi dund duñ la dimbali te moo ni tey da bu faatu woon tey ñu mujj koo dajal moo tax euh, ma wax ni mbokki léegi day du mën a baaxul waaye daal bareetul njariñ kon ma ko waxee léegi rek maa ngi nuyu euh, gu yàlla bu baax muy sama caméraman bi di ëmm di ko baax te man loolu liggéeyam tubaarakallah waaye tamit du nuyu bu baax soo xam soxna Amati Cissé ne ca Tamba ki nga xam ni moom la nu may dédicace émission bi semaine bi yëpp ndax bëgg gi bëgg ji la émission jërë ngeen jëf bu wér